wa ala alihi wa sahbihi wa taabiina lahum bi ihsanin ila yawmi din amma ba'du ayyuha al ixwa baada an taxaddasna fi ljumaati almaadiya an alxajji wa ahamiyatihi wa fardiyatihi nataxaddasu alyawma an wujubihi hal ala alfawri aw altaraaxi wa ala man yajibu wa an baadi almaqasid alsharciya fi lxajj amma baadu alulama fasaabu ila an alxajja waajibun ala altaraaxi fa yuadda fi ay waqtin min alumr wala yasamu man wajaba alayhi bi taxiirihi mata adaahu xabla alwafaat wastadallu ala dalika ala anna rasula sal allahu alayhi wa sallam axara alajja ila sanati asrin ma ana ijaabahu kaana sanata sittin walaw kaana waajiban ala alfawri lama axarahu sal allahu alayhi wa sallam wa ama baadu alulama wa minhum malik radiallahu anhu dahabu ila an alxajja waajibun ala alfawri wastadallu ala dalika bi hadisin ruwiya an ibni abbasin radiallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal man araada alhajja fal yuajjil fa innahu qad yamradu almarid wa tadillu rahila wa takunu alhaaja wa amala alawwaluuna hada alhadis ala nadbi walistihbab ayuha alixwa yajibu alhajj ala almuslimi albaaligi alhaaqili alurri almustatii ayuha alixwa fa in alxajja bi masabati mutamarin sanawiyin lilmuslimina fi jamihi anxaai alaalam wa min huna fa yajibu na fa yajibu alayna nahnu almuslimin an naxtanima tilka alfursa li muraajaati almuskilat allati tuwaajihu almuslimina wa an muxaawalati ijaadi xuluulin laha bi tariqatin xaqlaaniyatin waaxiya kama yajibu an nuraajiha alxalaqaat fi ma baynana li anna almawqifa fa in almawqifa fi arafata يجب أن تكون موعظة واعتبارا على أننا كما وقفنا في ذلك الموقف وفي وقت خاص سنقف أمام رب العباد وسيسأل عنا العهود والمواثيق والحلاقات فيما بيننا ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب